les internautes maa leen di nuyu di leen baax a baax di am mbégte euh, jàkkaarloo yéen ci seen chaîne leader bi leen Equivox TV la chaîne mais aussi la chaîne qui informe juste et vrai yaakaar naa ni nag jamono ji euh, làmb nekk na loo xamante ni actualité la bu ñu jamono ji ci li nga xam ne rek moom mooy réseaux sociaux yi tey maa ngi fi Pikine test fi euh, tonton Abdou Bakhoum kenn dootu ko présenté ci lamb ji dañ koy nuyu rek daal di koy ziar bàyyi ko mu nuyoo setaan seetaan balaa ñu xuus ci waxtaan bi tonton maa ngi lay nuyu bu baax di di nuyu Mawne làmb di nuyu ñëpp di wax rek ne euh, nii la liggéey boobu boo ci gis ah da ci doog a rek na ngeen ci sonn boobu ba léegi yéen a ngi fu ne jaar nga fa pour man man xam naa ne ay xale ngeen di góorgóorlu rek pour am na ngeen di ba seen waajur maa ngi bu baax nuyu Mawne làmb di nuyu ñëpp képp koo xam ne ki rek muy seetaan bi. ci kàttan yàlla di ñaan sama borom defal ñu tawféex ba luñ fi wax rek mu nekk njëriñu làmb. tonton ngeen jógee ci li nga xamante ni moom mooy euh, combat muy diggante Ama Baldé ak ki nga xamante ni moom mooy Modou mu nekkoon combat boo xamante ni combat titre la ginnaaw ba ngeen ko ñàkkee euh, jot nañoo dégg ni euh, combat Siteu ak ki nga xamante ni moom mooy Ama taxaw na loolu lan ngeen ci mën a wax. <laughs> non ñun moom dégg gu ma gum ci la kenn ñëwagu ci woon wax ma man daal. combat bi nekk ci sama karam mooy suñu diggante ak Gris Bordeaux mais beneen boo xam ne bii wax nañu ma ko bëgg-bëgg rek na gars am parce que combat boobu bu amee itam day nekk combat boo xam ne bii comme bi jàll rek lay mel nas askanu senegal ñoo ko bëgg donc bu ñu ko bëggee itam tey jii kenn ku ne ci da nga bëre ba am foo ci làmb tey jii ama dafa bëre ba dem bëri jëkk ay magam si tey daa war a bëre ay magam bëreeg ay nattangoom bëreeg ay rakkam te loolu mu def noonu vraiment euh, keroog ku ñëw ci làmb ji gis nu muy duy làmb ji sa day sedd sax da jàpp ne moom ci boppam jar na un milliard ki ci des warta jar sax téeméeri junni xam nga loolu loolu sore na un milliard ak cinq am na ñoo xam na ñu tey ji combat bi wala doon tëggaloo tey jox ko keneen boo ko ne bu la nee cinq cent doo ko doo ko tontu donc moom xale la li mu jiwaam mbooloom ba ñu ànd ak moom lu mu ci dellu ginnaaw ama c'est la même chose loolu xëy na ama ko jiitu ci làmb euh, waaye lépp loo xam ne nii rek gis na ne ama ngi koy def pour ay nitam bëgg ko nii ama ni ay nitam bëggee ama moom itam góorgóorlu ba ay kemtulaay kattanam ay nitam bëggee ko noonu kon ñaari combat yu nga xam ne benn bi jàll na benn bi ngay wax itam boobu noonu ku ñëw ci ban rek ñu toog waxtaan. bu la bu ñu la seet see diggante waaw non loolu moom l'essentiel loolu du luy baat ak tontu lay doon buñ d'accord bu soobee yàlla ma fekk kay ku may si daal na nga fekk ba yor xaalis rek. combat bi xaas bëri nga. Ah, lu combat li mu laaj rek lay laaj li mu laaj rek lañ koy def ah moom lu mu laaj loolu la ñuy ñuy taxaw ndax xam nga euh, c'est la première fois lamb arène nationale ba mu amee fii ak Demba Diop ak Iba Mar ak fépp billet dix mille francs moom billet war a jël mille francs jaay la ko dix mille francs ci. combat Ama Baldé nga ko mën a gis ñeneen ñi ci des ñëpp da ngaa jaay cinq mille francs wala trois mille mu waaye dix mille loos ci kaw fees ci suuf fees ci kaw fees ci suuf fees loolu caaxaan. Ama mu ngi cee am mu ngi ci jàmm mu ngi mu ngi ci jàmm mu am wàllu wérgu yaram lu xaw a tege téeméer loolu la ngeen ci wax wala nga rassuré ay fansam ci loolu ko jege loolu. non man kay ñuy wax yëpp nangu naa kenn ku ne ci nga dem gëdd docteur rek boo gëdd docteur boo ko seetee mën am na lu manqué ci yow de. mu ngi mel ni oto bii di daw nii bu gaaree léegi mécanicien bu ko tiimee am na lu mu lu mu ciy wax ci moom loolu rek moom dañuy sant yàlla bu baax parce que euh, loolu xëy na ñi koy wax dañu koy waxee noonu rek mais ñun daal ñoo ngi sant yàlla. yéen baax ngi bu baax seen combat Gris Bordeaux. ci kàttanu yàlla combat boobu daal moo ne suñu kanam ñu nuyu de dépassement ngi nuyu bu baax di nuyu ko lay mi nga xam ne moo tegoon combat boobu nga xam ne moo doxoon ci am ak Modou Lo bi ñuy séntu Ibrahima Diop mu tëgg ko di ku baax moom itam di doomu Pikine dañuy ñaan yàlla ci kàttanu yàlla mu ngi ko yàlla mën loo incha allah le 7 janvier ci kàttanu yàlla may ñëpp jàmm ci kàttanu yàlla ñu remplir suñu contrat ñaari mbër yëpp remplir contrat dégg naa sax beneen mbër bi dina ñibbi si euh, samedi waaw nga xam ne promoteur bi woon na ma léegi xam naa ne na ci lu mu ci xam daal bu soobee yàlla la Lac euh, ak ki nga xam ne moom mooy Siteu ñu bëri euh, euh, maanaam ñu ngi laam-laamee li nga xam ne mooy victoire bi ginnaaw bi nga xamante ni Père Max def na recours CNG mais Lac de Guiers nangu na ni nanguwul benn yoon li lu ni li nga xamante ni ñu ngi koy véhiculer à travers les réseaux sociaux nee na kubba ma nga këram ba tey lu ni mel amul. nga recours yoon la recours ci combat boobu noonu. ni mu demee. ça ça loolu loolu si yoon la parce que mbër dañuy wax chaque jour ñun suñuy mbër. bu ñu amee luñ naqari amuñu droit dugg ci géew bi di di revendiquer wala di kaas wala di def dara mais li ñu yoon may mooy bu ñu amee lu neexu ci suñu làmb ñu gis ne dañoo àtte ci loo xam ne waruñoo àtte am nañ droit bind jox ki nga xam ne moo ko affee monde làmb muy CNG de lutte jaar ci secrétaire euh, administration bira euh, kii Ndiamé Diop ba ci président bi nga xam ne bii mooy Bira Sène ñu teg ñu ci yoon tegaat filmé yi xoolaat bu fekkee ne lu ñu war a am la. dana nañ koy delloo bu fekkee ne lu ñuy war a ñàkk la ñun ñu xaw ñu ne carrément lii lii la yoon te wax lii ak lii ak lii yaa fi am kon dañuy maintenir li nga xam ne moom noonu la. fu mu non loolu moom mën naa la ko wan bala ngaa ñibbi ngeen ne saako yi ñaari yoon si ngeen ne saako ñaari yoon donc loolu euh, dadul loolu sax ak lu làmb ji daal euh, wax dëgg yàlla su ma sañoon loolu du feeñ sax ca làmb ja dama bëggoon daal. comme xeexan nañu ñoom ñaar ba ñëpp gis ne xeex nañu songoo nañu ba jàppante nañu jàppante nañu kenn ku ne def ngeen action bu mën ne daan sa moroom jël la amut ba foofu jàpp naa ne ci kàttanu yàlla ah ñu bari jàpp nañ ne baat tontu lay doon la de guerre Siteu. gis nañu Siteu lañ jox pour avertissement muy benn mais la de guerre gis ñu ko benn yoon ci euh, euh, ci biir euh, làmb ji ñu jox ko. ñàkk gi ñu ko jox ñoo ko avertissement mooy dafa gént arbitre bi gisu ko. te avertissement lañu ñu ñàkkaloo Siteu te dañ ne victoire bu ñu joxe par euh, avertissement wala décision arbitre amul recours mais nag boo amee lu leen leer xamal ne yéen tama mbër bi mu defee lii da ngeen ko def te kii bi mu defee lii defu leen ko lii yoon dañuy àtte rek dañuy tëral yoon léegi ñuy seet ni nga xam ne noonu la ñuy àtte Maxi Mergan di koo xam ne kii moom itam dara ump ko ci yooyu lu mu ci war a xam yëpp xam na ko fu ci war a taxaw da ciy taxaw bu taxawee position boo xam ne bii yoon da ko may dëgg. yoon da koy delloo dëgg rek. ah loolu kay jàpp naa ne ci kàttanu yàlla bu fekkee jaar nañ ci yoon loolu war a defee. yéen a ngi waaj seen combat bi fii pikin ndax yaakaar naa ni beneen beneen combat royal mu ngi waaj am fi nga xam ne moom mooy Pikine fii muy diggante euh, Boy Niang ak ki nga xamante ni moom mooy Modou Lo yéen a koy waaj. non combat yëpp rek comme ni ñu ko waajee woon nii rek la ñu koy defewaat parce que waa Pikine ñëpp dañoo waajoon pour bëri jeeg Modou Lo Modou nag. moom itam ni muy def nii noonu la parce que ah xañ na quatre ans ou cinq ans yi mu toog bëriwu ko bu bëree ci benn at décalance bi que mooy de trois mois nga bëri ci ñaari combat loolu ça c'est te itam jàpp naa ne loolu noonu xañ na loolu la bëggoon boo tax mu jëloon ñaari combat yëpp pour bëri ñoom te xam naa li nga wër moom bu lamb yi jeexee boo ko joxatee combat dina ko bëri ci ba xelal la tolloogul fu muy bàyyee bëri wala dara. daa ci toll fi mu nekk nii wut bari liggéey bu jeexee jeex na comme sama doom boo ñaan ni koy bu jeexee jeex na noonu la. ñaari état de forme mbëri keroog nu nga ko gisee gis nañ boo ñaar dëkk euh, ki nga xam ne mooy Modou Lo ne ko maanaam Pikine doo am doo jël mairie ba état de ñaari mbëri keroog. noonu loolu loolu loolu am moom ku dëkk ci dëkk mënoo ko yëbal parce que minute minute woo fa minute woo fa demoo fa dal mairie ak làmb du benn mairie ak làmb du benn. comme ni ko xale yi di waxee comme dugg na Pikine daan duggaat Pikine daan. <laughs> Modou day mbalak rek day mbalak gars yi rek waxu ko sax xam naa ne boo demee gars yi ko wax loolu rek mais euh, ñaar la ñaari xale yoo xam ne kenn ku ne ci yaa ngi préparé ce combat bien bon bien bon ñoom ñaar ñëpp am qualité rek yoo xam ne yii yu leer la boo ñaa am na qualité bu mën a bëre Modou Lo daan ko. Modou Lo itam am na qualité bu mën a bëreeg boo Niang te jàpp naa ne lépp loo xam ne euh, ñaari mbër yi war nañ ko remplir jour boobu jàpp naa ne combat bu neex lay doon mën naa nekk sax combat bu gaaw bu gën a gaaw combat mag ama Modou Lo nga xamante ne yéen ñeneen magu Pikine nii gis ngeen waxtaan ci li nga xam ne moo ñeel boobu le combat royal. non ñun moom amuñu problème boobu ndax parce que làmb lu ne fekk nañu fi. liste laa wax comme ni ngeen ko daan defe ndax am na. non amagul sax waaye jàpp naa ne am nañ ci ay échos yu leer na comme quoi que ñoom ñëpp ñu ngi lay basa mbër yi ba ñoo ngi am sax fi ñu gisante ñoom ñaar ñoom ñett baa ñoom ñeent kon ñun laja lañu yomb na ndax ñun bu ñu wàccee yaa ngi nii fekk ma fi ma wàcc rek nga woo ma donc tey jii bu ñu ma soxla woon ñu ngi bërëb sàngam it dañ toog waxtaan dañuy waxtaan rek. wooguñ la ci. wooguñu ma mais nag jàpp naa ci kàttanu yàlla. bu ñu ma woowee itam ma wuyu ji leen soobee yàlla. ne dinañ la woo ak li nga xamante ni moom mooy polémique yi nga xamante ni ñu ngi koy wax biir Pikine booloo bi des na euh, ba keroog gis nañ euh, li nga xamante ni moom mooy première face to face bi gis nañ euh, maanaam ampleur bi combat Ama balde mootloo amoon ak bu Boy dafa dafa xaw a dafa xaw a bokkul. ñaari mbër yi xañ na wuute foofu tuuti rek mais parce que population yi nga xam ne bi moom la. dañuy traîner ñoom ñaar ñoo bokk ay supporters mais euh, engouement bi am ci Ama dafa dafa metti woon. combat la boo xam ne bi tout para dem na cinq ans dafa metti ñi doon toog di xaar lu yàgg combat bi am na combat bii nga gis nii am na ñoo xam ne yëguñu sax ne Modou Lo dina bëre ak Boy Niang <coughs> kon jàpp nañ ne daal euh, xëj na ba nañ cee yegg du ñàkk mu gën a ñu gën a jaay combat bi. <coughs> ci wàllu média parce que <coughs> boo ñaa il faut mu am itam ñu koy médiatiser ci wàllu làmb ji pour waa Pikine xam ne day Balla Dieng ak coron le Roi ñoom ñu xamal ko loolu. tonton euh, doguma la mais làmb ji li ci des yaakaar naa ni bëreetul ndax le premier janvier ñëw na ba pare kon lan moo ci desati ñu médiatiser waaye gis nañu ne Pikine dafa mel ni daal. Euh, euh, maanaam daal nañu jëlee woon euh, combat ama bi daal jëlee wuñ ko bu booy ñaar ba tey ji ba may ñëw gis naa fi nga xamante ni suñ yuñ tafoon ama roi des si roi des arènes ba tey mi ngi fi dindeeguñ ko. dindeewuñu ko parce que xale yi bu ñu demee ba léegi da nga ñëw ko seen ñëw taxaw photo xool ba sa xol sedd war na sa bopp dem mais dañu leen di wax xale yi rek ne loolu yoon yemul ci benn ci kàttanu yàlla lépp luñ doon def di am ndam defoon nañu ko sunu borom tabaaraka taala moo ñu xañ. xam ne loolu rek te xam ne ñaan nañu yàlla ci kàttanu yàlla lépp loo xam ne lii mbër da koy am ci làmb nga xam ne bu ko defee am ko ci làmb amaa nga ci ak staff bi mu àndal nañ muñ rek boo gisee ne combat bi itam xañ na demewul noonu booy ci bare bare bare dañoo jàpp ne combat bii jàll moo waroon a gën a metti beneen bi ñëw. moo tax yaa yëpp nekk titre roi des arènes. muy loo xamante ne ñoom bëgg nañ indi leen ko muy euh, euh, tout roi des arènes bi encore muy ñaari xale diggante Ama ak Boy Niang loolu lan lay lan lay waaw mais loolu dara dafa gis nañu fi Bombardier keroog bi muy daan Balla Gaye fii di jël roi des arènes benn mini car la teg xaw ma Ndiaye feesu ko kenn ñëw mu daan Balla Gaye nekk roi des arènes <laughs> loolu dara loolu da ci dara cest à bi ni mu woon siiwoon na ci ay. ay ay waxtaan wala ci ay sànni ay trac combat boobu bii am amul noonu parce que bii itam dañoo xaw a féete ci benn côté bi mooy côté ban mooy côté liggéey nu ñu mën a def ba am ba traîner combat bi ci ni position bu leen neex nu ñuy def ba gagné ko en manière nu ñu def ba nga xam ne itam ci kàttu ne bu ñu demee ci làmb ji fiix firi càmbar càmbar bañ am bañ yàqu-yàqu bañ am ñu mën a xool seen adversaire jàng ko ndax Modou Lo bari attention Modou Lo bari na ñu muy bëreel combat bi day teel a pare xool jàng bala ngaa ñëw mu nekk jàngat di ne kii ngay def say bagage mu ngay doom di ko romb mu ay xool boo xool ay portes yi mu jaar ci yow léegi nag bu fekkee ne ñoom it am na ñu lecture boobu loolu waral loo xëy ne mënuñoo suux ci yu bëree bëri parce que ñi nga xam ne ñooy karaak yi nga xam ne ñoo am booñaa ci wàllu làmb ñooñu duñu duñu niti média amaana sax yow doo leen gis mënoon naa ci romb kenn mën na ma ci romb fii léegi ma xala ko mais day doo ko gis sax am na ci ba duñ dem làmb man coow lii amay am ci diggante parce que mbedd maa ngi nii gis nga ko tey jii bu ñu la waxoon ne fu boo ñaa dëkk tey doo ko xam mais foo taxaw ne ko ñu ama ñu ne la mu nga ne parce que ama dafa papaam dafa def loo xam ne lii au niveau de Pikine da ci Dakar dafa rëy. dégg ñaari mbër yi daal duñu benn ci wàllum popularité. wuute tuuti rek rek dañoo xam ne wuute tuuti mais kenn ku ne ci tey jii nii yaa ngi toog ci position boo xam ne bii fooy bëree ji da nga yóbbu couleur Pikine te it ku bëgg a yóbbu couleur Pikine nag faut nga jéem a gën di waxtaan ak waa Pikine ñu xam la. ñu miinante yow yow itam di di dugalante génnante comme ni ko amay defee. su ma déggee maanaam euh, euh, génnul comme amaa ni mu mel ak ay supporteram ndax loolu tamit lu am solo la ndax mbër dafa war di saafonte ay supporteram jege ay supporteram est-ce que loolu tamit mu ngi ci waaw loolu moom wax dëgg yàlla euh, ku xam Boy Niang xam ne looloo ngi ci moom xëy na nag am na am na am na dirigeant yoo xam ne yi dañ lay wax da toogal fii waxal nii defal nii. mais Boy Niang sax amul problème boobu en gis nañ euh, maanaam ba muy dem euh, euh, maanaam Pikine bépp mun naa ni génnuñu ndax Ama Balde ba muy dem face to face ak ki nga xamante ni moom mooy Modou keroog àdduna bu tukki la mais bi passé gisuñu. Pikine bépp génn ba dégg nañ sax ñenn ñi ànd ak Boy Niang ñuy wax naan soxlawuñ leen fi Boy Niang kenn du ko saraxee di dégg kàddu yooyu noonu lan nga ñuy wax ci. non loolu ndax keroog Pikine ñëpp génnuñu ñu ànd ak Boy Niang. mais mooy li ma la wax rek xam nga dégg nga ñoom ñu ne soxlawuñu kenn dañoo am rek position bu ñuy taxawee bu ñuy liggéeyee rek li xam nga xaw ma li tax ñu neex ñoom ñu kenn xam nga nag affaire saraxe yooyu daa daa comment xam nga gars yi ñoom dañuy xewal benn affaire lu xew ci làmb tey bu déwénee beneen moo génn yaa ngi dégg la dëggee naa ma kenn naa kenn du kenn dama saraxe yooyu la ñuy wax ñoom du ñu xam sax mooy yi dañ koy génn rek mais doo dégg loolu boo ñaa wax ko doo dégg papa wax ko doo dégg kenn ku sës ci moom ah en matière technique tactique physiquement moralement muy wax lool parce que nag ku fi jóge doomu aadama ñoo boo ku gaañ boo boo génne àdduna sax doomu aadama ñi lay suul ñëpp bokk ñoo yow dara dañ lay gunge rek nga dem ñaan ñaanal la amaana sax mosoo lekk seen ceeb wala mosuñoo lekk si ceeb te yéene gi yéene mooy nga am jàmm fa nga jëm loolu la àdduna mel il faut nga jàng nit ñi moom am lépp am nit ñee ko gën ndax suñu borom tabaaraka taala doon wàcc tey ci kaw suuf dana jëmmi doomu aadama laa yor looy wut wutal doomu aadama yi bul boddi kenn bul sàggal kenn. loo ma illustré tamit seen bopp par rapport ak li nga xamante ni noonu la ñuy noonu la ñu gisee woon combat ba passé am wax ji bari na yu nga xamante ni juddu woon na ci est-ce que tamit gisuñu seen bopp par rapport ak combat boobu noonu. waaw mais loolu loolu daal boo xam ne man déglu ma déglu ma keroog sax ma face bi. seetaan moo ko dafa guddee woon xaw a dimanche dama xawoon a sonn moo tax ndax dama yenn ci benn ngénte mais daal li ma bëgg ma xam dal mooy ñun ci suñu wàll li nga xam ne li bëgg nañu ko doxal tey jii mooy pikin yëpp lu ci mën a am pikin yëpp lu ci mën a am ci àdduna jàmm ak salaam lañ ci bëgg nañ ñaan yàlla rek am jàmm su ko defee lu ñu wuti am ko lu ñu wute am ko ñoom ñett bi ñu àndee kii di bëre Papa Sow kii bëre bu Sa Thiès kii di ji bëri jeeg Bombardier ñoom ñett ñëpp dañoo am ndam. muy muy bëree combat boo xamante ni combat euh, royal la tey boo amoon loo koy wax ndaxte nag ndam li euh, bu ko amee Pikine la koy la koy la koy dugal muy titre roi des arènes bi euh, maanaam tey boo amoon loo koy wax lan lay doon. waaw non xam nga wax bi day day teel parce que wax dëgg yàlla comme yenn saa yi da ngay wax ba say mën naa jégg ba ca mbër ma du ñu mën a wax ci télévision wala ci rajo. loo koy wax ndaxte keroog ñu ngi dégg sax ay journaliste di ko posé question naan ko euh, dafa mel ni da ngay wax ak mer mu mel ni koo xamante ni daal euh, mer la bëgg a faj tey boo ko doon conseillé ci wàllu bëre lan lay doon. non ci wàllu bëre moom ku am xam-xam la ci bëre parce que combat moom bu la ci kenn nax arbitre bi soufflé nga ànd ak sa souffra ànd ak force sa technique. jàpp naa ne loolu koy xañ du yomb te moom am na loolu ba pare donc li nga xam ne nag moom lay véhiculer ci biir géew ba nga xam ne xëy na mën nañu koo wax ni muy dee pour mu am ndam mën nañu ko wax ëllëg ni mu mën a sàmmee boppam ñu war ko wax ëllëg gi si biir ni mu war a dëkk ay dëkkandoo ak ni muy préparé ba ca regroupement ba ca dem làmb ja kooku stade bi ñoo koy war a waxtaanee bu ñu ci wooyee tam ni ñu ci waxtaan suñu waxtaan suñu képp laay kàttan muy téléphone ba la ñuy déplacé wu ñëw ci man. maa ngi bu ñu doon bu ñu doon dégg biir Pikine naan deux cent Pikine euh, deux cent pour cent Pikine amatu na amatul baa loolu rek la ngeen ko dégg. non deux cent pour cent dañu ko waxoon nii rek deux cent la ñu ñëwoon sunu benn grand bi leen wax buy wax euh, Samba Diagne moo ne grand idéal moo ne dañ ko def deux deux cent pour cent mais deux cent pour cent booy seet kii cent pour cent rek la. nekkatul nekkatul cent cent. non dañuy wax rek dañuy wax rek mais loolu kenn du ko fa jëlee. kon kon kon mën nañoo xaar père Abdou Bakhoum taqrib ci combat bi. ah làmb moom moo bindoo noo xam ne da boo buñ buñ ne fooree tama xam nga ñu tëgg ni tama rek ku ñu fooree tama da ngay ñëw ne tëgg ni tama. Jakarta ku bu ñëwoo itam ñun ay Pikine waa lañu. buñ la woowulee di nga dem. Modou Lo sax xam na ñun ay Pikine waa lañu. ndax buñ la woowulee di <coughs> jàpp naa dinañ ma woo te bu ñu ma wooyee bu soobee yàlla dinaa def sama kéem tolluwaay gàttal. ndax di nga dem loolu laa lay laaj ndax Pikine lépp Pikine la. waaw moom <coughs> mën na nekk. mën na nekk ma dem parce que itam wax mu yéegi sax suñu boroom la neex mën nañoo ñaan yàlla ba yéeg ci penc ba ca bis ba ñu woo ma jël lépp teg ci sama loxo dama am ngànt lu ma tax a bañ a dem boobaa itam dama leen di wax li nga xam ne ni mooy sama xalaat su ma fekkee may noyyi waaw <coughs> kon nag li ci des na ñaan rek yàlla ñu yegg ci ak jàmm jërëjëf kontaan nañ tonton ñu bàyyi nga daal di tàggoo ñuy seetaan. <coughs> xanaa <coughs> di woo waa Pikine di woo Mondo Lamb di commencé ci Ama Baldé Ama Sène Boy Niang Tyson Balla Gaye numéro 2 Balla Gaye numéro 1 Mansour Diop ak ñi nga xam ne maa ñoom ñoo màggandoo maase woon noonu bëri noonu mbappat fi ak sama xarit yëpp ak monde làmb yëpp ak ménages yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo jiite mbër yi di engagé seen i combat nga xam ne suñuy kilifa ñooy seen su du lit Bira président de la président de la du CNG Ndiame Diop directeur ak waa service des gépp 14 ci Sénégal yëpp fu maintenant see nekk maa ngi lay woo ci sama drapeau bi nga xam ne moom la ñuy wute drapeau nga xam ne euh, Sarko mooy bëre ak Diène Kaïré drapo bi yàlla dogal man lañ ko tuddee may woo sama mbokk yëpp rek ñëpp ñu ma bokkal maa ngi leen di woo ñi ma bokkal dëkk ñu ma bokkal diine ñu ma bokkal ci politique bi ñi ma bokkal ñëpp maa ngi woo ñëpp ci kàttanu yàlla waa waa Pikine rawatina Pikine commune Pikine yëpp maa ngi leen di woo di siyaar bu baax waa Ngoy Aliou Sylla gi ma dëkk di wax ñoom itam ah nañu pare takk ñëw ndax bis la boo xam ne bii bis bu ma fonk la ndax Abibulaay Ibulaay dafa dafa tëgg combat boo xam ne bii dafa rëy ba pare mu ñëw dugal ma ci biir jox ma cër boo xam ne bii damay ñaan yàlla fu waaye mën a nekk ci àdduna ñu ñaanal ko jàmm ak salaam mu am si réussite totale bu mu séentu woon si ci benn combat jaar fii moom tàkk ba faw moom ibulaay Laye loolu laa ñaan yàlla xam ne moom soobe yàlla dana ànd ak samay bokk ñu sënk ma indi ma ca làmb ja ma indi drapeau ko teg ko ci xel di ñaan ñaari mbër yi muy Zarko sama rakk la xam naa ko bu baax jàmbaare fàkk tëdd la xam naa jën kayre di sama doom ndax ku booy kayre jur ñun ñëpp ay ay génération lañu maa ko mag sax moom jën booy kayre waaye nag lu wétti wóor mooy ci kàttanu yàlla lépp lu ñuy lu ñuy def ñun dañoo bëgg bu ñu koy def ñaari mbër yëpp gis ci seen bopp dañ ñaan yàlla ci kàttanu yàlla bu ñu fa yeggee allah ñoom itam ñoom ñëpp ñu entraîné li ñu war a entraîné kenn bañ a gaañu ñëpp am jàmm ñu ñëw bëre bëre bu neex dóorante jàppante bëre ba ba ba làmb jëpp ñëpp bég ci kàttanu yàlla kii daan daan koo xam ne kii itam yàlla doog na amoo amoo ndam nga ñibbi ndànk ak say mbokk gis nga stade bi ni ñu ko def dañoo teg teg siège yi te loolu lépp mënu naa ñàkk loolu xale yi loolu rek la nañ bu indi violence bu indi kenn nañu fexe ba ci kàttanu yàlla di nuyu nag bu su nag waa Pàkku Lambaay ndax xam nga boo Lambaay Lambaay ay boobu boo lañ man boobu boo la ñoom Sall Ndiir ñoom euh, Abdoulaat Cheikh Abdoulaat moom bu euh, Touba Belel maa ngi koy nuyu bu baax a baax borom di nuyu itam kër gi nga nekk nii Sall Cissé ko moom Pàkku Lambaay la dëkk kër gi nii karo bi kër karo bi maa ngi koy woo bu baax di ñaan ñëpp daal jàmm ñëpp teew di woo sama maa écrit di woo écrit ci Sénégal yëpp nag ñëpp ñëw ci kàttanu ñu yaakaar naa ni euh, dégg ngeen li nga xamante ni moom mooy woote bi nga xamante ni euh, Père Bakhoum daal dina koy woo ci drapeau bi nga xamante dañ ko ko tuddee diggante Zarko ak ki nga xamante ni moom mooy Diène Kairé woo na ci ay mbokkam yaakaar naa ni tamit ñu fi waxtaanee dina doon njëriñ ci yéen ñuy seetaan dina doon mbégte ci yéen ñuy seetaan di leen jox dig daje incha allah rabi très bientôt ak beneen invité d'ici là portez-vous bien merci